Sonko bi nga xam ni ñoo ngi ko séquestré ñoo ngi ko empêché tout mouvement et démb ñoo ngi lire un communiqué de El Malik qui disait que même jibi Ndiaye sont chargés de protocole nga xam ni moo fa nekkoon di def yenn course yi on le lui interdisait et tout à l'heure mi ngi may souffler que ça a été réglé ce que loolu waroon nañu toll foofu donc injustice inqualifiable et amul kenn ci ñun commencé subir injustice te amul taxawaay bi nga xam ni moom la coalition bi war am ci sa wet moo tax ñoo ngi wax mbokk sénégalais yi nekk biir réew ak bitim réew que coalition Yewwi Askan Wi retenir na la date du 25 le dimanche 25 coalition Yewwi Askan Wi di ci woo askan wi pour yeewi ji le président Ousmane Sonko ci blocus bi nga xam ni moom lan ko teg le 25 boobu ñu bare ci diaspora bi xam nañu ni daanu ñëw tabaski si moo tax ñu boole leen ci ak sénégalais yi nga xam ni boobu ba tey ñoo ngi taxaw di wax lii mënul nekk il faut nu jóg ci il faut ñu xool lu ñuy def. ñun nag mën ñuy nekk coalition bi jóg pour yeewi askan wi ñu yeew suñu benn leader amul sens ku mënul yeewi sa leader noo mën yeewee ku mën yeew un de tes leaders noo mën yeewee askan wi bu fekkee sénégalais yi wax boobu ba tey ni gëm nañu ni yeewi askan wi dafa jóg pour yi askan wi gëm nañu yeewi askan wi aussi nanu jàpp ni yeewi askan wi woon na askan wi pour yeewi un des leaders, le président Ousmane Sonko, le dimanche 25 à 15h.